ustaas yi nga xamante ni ñi ngi wax naan euh, Cheikh Bass mu si Abdou Khadir loolu mu def déclaration ne Serigne Touba fale dafa bokkaale loolooy erreur la yoo xamante ni dañoo xamul lan mooy bokkaale ndax dafa am ci bànqaasu lislaam saxaaba yi dañoo mujjoon ci seen biir amay réeroo ñii di xare ñii di gaañante ci seen biir lu ne xëccooy nguur yu ne ca ñoom ñëpp ñi ngi salli ci ñoom di julli ci ñoom talxatu subayru xaale ak àlliyun ba ci muhaawiya ni mujjee yor nguur gisatu yonente bi ña ko doon rey sax ay jullit lañ xëy na ñooñu sax bokkuñu ak saxaaba yu mag yi mais taarix boo ko jàngee di doonoo boroom xel dëgg sax man nga am sikki sàkk ci sa bopp te wute woon ay xalaat rek la te ku ne defara la taxoon jug te suufi yu daan nañ wax lu gën a rëy loolu bu ñu leen mosaan atte ci diine sax dañ leen daan rey naan ay bokkaale la def nañ ko nit yàlla yu mag ci ñun Euh, ku mel ni imaam Xasaali layal na ci ñu bëri ñu mel ne Cheikh Ibrahima yi ne Daham ñu mel ne Rabihatul Adawi yu mi daan wax naan kaaba gi dafa mel ni xërëm bu ñuy wër rek ndax nee na am na ñoo xam dañuy defee ne jaamukaayu yàlla la te aw doj la rek ndigal laa ci am solo mu layal ko ne loolu déggin la Ibrahima yi ne Daham Cheikh Ibrahim du suuxi mi daan wax naan. suufi yu bu mag boobu xutbul xawsu bi euh, samay sekkareem ak aadamaak nangam samay mbiree raw aadamaak wax-wax yu kiimaane mu koy layal ne football xawsu la bu mag nga xam ne ñoom sax dañ daan défendarante Serigne Touba bi mu demee Mauritanie défendre na Cheikh ahmed Tidiane ci ay ñu ko daan siyaare si jàppe seen maam wàlli wu mag mu ne leen lim wedd Cheikh ahmed Tidiane tax jàllagul àjjana parce que waxam ju siiw jooju mu waxoon ne yàlla kenn du ko dugalaale ci wanag euh, ñoom ñu ne yàlla fépp la nekk tontoo ko aal maqaamaam xaw ci lu bari ci barsàq parce que waxi waxi kalamul awliya lastu afhamu li abu shahid waxoon maanaam ana ana wahum xamu degin la laaj mais nak wutiin yoyu ni couleur yi wutee baram yi wutee ko nasu mukhtalifun la nit ñi wutee ngam motax mandu rek mo leen mëna atté ku ne japp ci la nga japp ba yowmal khiyam amna ño xamni ni sa prophète bi ngay sukkandiku buñ la ci doon critiquer di la ci waxi affaire man na woyefé bop sax ñu détourner sa xel ndax nit ku la gëmut gëmul la rek waaye nak buñ tax mukk ñu bëgg tuddo diiné ta addi ci ñuy indi wala ay ñuy indi leg leg benen ay da koy folli e, di sukkandiko dal ci seen xel di fowé seenum xel ci rek e, bëgg yaq li fi mag ñi liggéey loolu amul ben ben njëriñ salatul ladhi fi kull lisan wa fi safar hamani ala ma hin ma hasa wa safar